muy noonu euh, Ibou Diouf tey nag ngay waxtaanee Salimto Salimto nag aw bayit la bu nekk ci xasida Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul. da nga ko waxee soxna Fatou noonu la amee di ci profito rek delloo njukkal euh, mag ñi nga xamante ne wala anciens yi nga xam ne ñoo xàll yoon bi. nekkoon ci média yi rawatina foofee ci RTS. Mm-hmm. ci ñëwaat euh, ci benn bayit boo xamante ne dañ ko def xalam mm-hmm. soppi ko li ñu duppee euh, jingle wala générique mm-hmm. mu jur li nga xamante ne moom la jur tey ci wallu mm-hmm. taarix média fi ci réew euh, taarix la saa yoo ko masaan dégg mi di jot na dawal boo sàgganee boo moytuwulee ñoom du Fall bool bi dana nga fekk ñu tàmbali <laughs> Salimto waxtu woowu ñu ko daan wax rek moom mooy wane woon ne añ bi jot na ñëpp dañ daan dem muy loo xam ne nag dañu ko màggaale mu bokk ci ñun dañ ci euh, buñ ci bëggee gën a xuus yaatal dañuy dem euh, seetaani élément bi ci amadu Ba def ànd ci ak Ibou ku dégg woy wi sa dem ci RTS rajo. bu nekk xasida Serigne Touba ma du Bamba mu bokk ci li mu bind ñu jëloon ko di ko jëfandikoo ngir jox rendez ñi nga xamante ni ñoo yey auditeur am. way way la euh, boo xam ne euh, ñu ko jëlee ci euh, yoonu murit ay ñu am talent way ko ñu maîtriser seen art way ko yàlla def mu bokkoon ci ambiance sociale bu Sénégal ambiance domestique bu foyer yëpp. musique Salimto. daf ñuy fàttali ne bu weesoo midi ak foo mënti nekk war ngaa mën a gaaw ak kër ga. nga rendez-vous la nga koy respecté. mais nous rappelle la ponctualité et ça c'est important. loolu dem ba bokk ci taarixu kër gi di RTS. mu bari ñoo xamante ne saa yuñ ko déggee tamit mu am lum leen di fàttali. mu amoon heure boo xam ne dañ koy teg bu midi demi jotee rek ñu teg ko boo ko déggee rek xam ne war nga dellu kër ga. war nga xam ne añ soriwul war nga xam ne ñibbi jot na moo xam ki doon lijjanti moo xam ki doon doxantu moo xam xale bi doon fo ñëpp daal xamoon nañ ne loolu signal la rendez-vous la voilà. moi je me souviens fraîchement sorti de l'armée. may fàttaliku rek ne ba may jógee armée doon nekk ak sa ak samay xarit way bi saa su ma ko diggee rek sama xel jëm ni war naa dem kër ga ndax it mel ne añ jot. ah les gens disaient c'était l'heure d'aller déjeuner. mu bokk tamit ci ni nga xamante ne rek bokk na ci histoire média fii ci réew mi. ma bokk ci histoire RTS euh, identité la woon RTS identité RTS dëggantaan wax bëgg yàlla ko kenn mënu ci dara euh, RTS comprendre ko di ko teg ba léegi ba léegi ba tey jii nii. Euh, teg nañu Salim Tow. Ah, par exemple les anciennes voix euh, euh, de de Samba Diabaré Samba. ak woy bi ñu ciy dégg ay kaddu waykat oh, yoo xam ni ñu mag lañu ku ci mel ni Samba Diabaré Samb ak xalam kon mu mel ni rek am na ay kaddu ak i message yu am solo yoo xam ne nii dañ ko ci jàllale. ñaani bañ na parfois avec deux voix simplement. Salim Tow dem ba am ñoo xamante ne rek jëlaat nañ ko def ko ci wàllu musique. am tamit ñoo xam ne ñu ngi yëngu ci wàllu média ñu koy jëfandikoo jamono ji loolu rek di firndeel solo si nga xamante ne xasida bi am na ko ci wàllu diine ak itam ci wàllu taarix. mu ngi noonu euh, Salimto euh, bokk ci sunu taarix euh, Ibou Diouf ñoo def ci gëstu bu am solo cher. voilà muy souvenir yu neex surtout ci Modou Fall di yëngal bopp bi rek. <laughs> jamono man ngeen di wax leer na dama ne lii jamono yi bool keng <laughs> Salimto. <laughs> li may wax faaleen bi ah digganteem ak ceeb. voilà Fatim mi ngi ko doon wax. sànq heure boobu la mag ñi doon sóor. Hmm? man heure boobu bu ñu ko daan dégg pour sóor. sóor mais amuñu kër ñu jeexi. boobu dañuy jeexi di bàyyi pour ñàkk. chéri da nga chéri tey jum nga. daal waay heure midi moo nekkoon. Ah. bool keng li ngay wax. mais Salimto bi heure boobu lañ koy teg bu dee 86 87 88. Salimto midi midi ah, mooy li ngay wax de añ la. Mbour Fall lay wax noonu xam nga yaay. Mbour dafa am léegi bàyyil ñu ñëw général bi man yaa man man version Ibou bi laa àndal. <laughs> <laughs> mi ngi doon ñëw sax Ibou ci origine sax euh, ab xasaayit bi mais est mën nga ñëw ci vrai su euh, Sadimto bi dëgg-dëgg. ak euh, portée bi message beeg yëpp. waaw Cheikh Tidiane ni ko waxee rek noonu la amee mu doon loo xamante ne rek ni ko doyen Aline Diop waxee léegi c'est une identité. Mhm. maanaam loo bokk lu bokk ci li nga xamante ne mooy taarixu RTS. li koy firndeel nag mooy liggéey boo xamante ne euh, euh, Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul moo ko bindoon. Mm-hmm. ci bayit bi euh, ñu tuddee midaadi waa axlaam yi mm-hmm. ñu ne nag 66 bayit la. Mm-hmm. ci 66 yooyu rek lañ jël benn. mooy salimtu Euh, donc euh, ñu def ko loo xamante ne daal dañ ko def genre rendez-vous. Mhm. Euh, tënk ko tamit mu wax ci lu am solo tamit mu salimto minal ahda ituraan mahal ci jaa lira bi wahabullahi lam yàqu mu taja ci tënk maanaam bi ñu laajtee dañu ne daal mm, Cheikh Ahmadou Bamba def ci wax mucc naa ci noon yëpp mhm. ba ma làqoo ci wetu sama borom mhm. te moom ku fa làqoo rek da lay bunt maanaam ab ñaan la ab mm. euh, taxawaay la mm-hmm. loo xamante ne daal moom la waa RTS jëloon mm-hmm. euh, def ko benn genre euh, générique mm-hmm. boole ko xalam moo tax mu gën a am porte bi mu am mu doon loo xamante ne tamit dafa traversé ay génération yu bëri quand même on a eu des xalam waaw ñoom ñëpp ñu ñu ñu reprendre muy lu lu am solo Chérif mm, waaw ci moo tax mu bëgg ko ci symbolique way bi. Mhm. comme wax nga ko sànq RTS bi ñu ko doon dégg mu nekkoon identité am. Mhm. waaw symbolique bi euh, euh, dafa di loo xamante ne tamit RTS ku dégg Salim Touré rek sa xel day dem ci rajo télévision bu bu RTS mu doon la nga xamante ne tamit dafa traversé ni mu ko waxee léegi ay génération yu bëri. Mhm. xasida la du ñuy reprendre forme de musique mais dugal ko ci seen habillage euh, audiovisuel maanaam loo xamante ne. dafay annoncer événement buy ñëw wala benn rendez-vous boo xamante ne rek. Mhm. ñëpp ko doon xaar ni ko waxee léegi bokkoon na ci li nga xamante ne comme genre horloge la parce que daf lay jox heure ba nga xamante ne fu mu la fekk. Mhm. ak loo mën a téye. dañ la naan demal doxantu kër gi nga dem xew lu nga ñëwaat. Mhm. donc loolu tamit bokkoon na ci li ñuy duppee ponctualité. maanaam loo mën a def tamit fexeel ba heure bi ñu lay jox. que heure bi heure xewlu la. bañ la fekk ci àll bu fekkente ne jàppaloo trop mu doon la nga xamante ne tamit doon na may kër yu bëri ñu daje baña daal euh, def li nga xamante ne ku si nekk da ngay ñëw añal sa bopp mu doon loo xam ne daal dafa am solo mu jaarale ko li ko gënoon may porté nag à l'époque RTS kese moo maanaam ñëpp doon déglu RTS jamono mm-hmm. yooyu rajo bi waaw rajo bi euh, ñëpp ko doon déglu ba tax genre rendez la woon boo déggoon soit nga yore sa rajo wala ngay romb sax ci mbedd mi boo ko déggee rek da ngay xam ne. Mm-hmm. jot na ma dem kër ga nag bu ko defee. Mm-hmm. Euh, ma mën a bokk ak askan wi li nga xamante ne daal moom la ñu toog ci wàllu meññeef xale yi tamit ku ci nekk mm-hmm. foo mën a dem. bu fekkente ne nekkoo école maanaam nga dem foofu yi soo déggoo xalam boobu rek li nga daan def yëpp dañ koy bàyyi donc moo tax mu doon loo xamante ne presque dafa marqué ay génération yu bëri ndax symbolique bi mu amoon à l'époque. yu bëri Ibou xanaa xaw ci yokk rek ni jamono jooju xëy na. télé xawul woon bëri rajo moo moo moo xewoon ñu bëri rajo lañ doon déglu moo gënoon accès accessible. ci jamono jooju léegi ci wàllu boobu à travers indicatif musical bi nan lañ mën a jàpp ci li nga xam ne rek euh, muy identité audiovisuelle bu bu média. waaw xam nga identité audiovisuelle dafa am solo par exemple tey am na ñoo xamante ne bu ñu tëddee bu ñu jàppee. Euh, euh, RFM soxlawuñu euh, Mouhamed Mouhamed njaay wala Georges wala Babacar Fall wax suffit juste ñu déglu jingle bi wala li nga xamante ne mooy ay générique pour xam ci fréquence bi ñu nekk. Mm-hmm. donc loolu dafa bokk ci li nga xamante ne dafay def distingo am na sax ñu dem beneen bu ñu déggee euh, baatu journaliste bi wax rek dañu xam fan la par exemple RFI mën nga bañ a xam journaliste bi turam mais su waxee par exemple. da xam ne lii RFI la. Mm-hmm. donc euh, ci loolu indicatif li nga xamante ne moom institut nationale bu l'audiovisuel ñoom ni ñu koy fësale di loo xamante ne day tax nga identifier rapidement émission bi war a ñëw wala également ci fréquence bi nga nekk rajo wala sax yenn saay télévision bi nga xamante ne moom moom moom ngay seetaan donc euh, mu doon yenn saay bu ñu jëlee œuvre Salimto xasida la bu amoon koo xamante ne bayit bu ñu bu ñu reprendre su forme de xalam ñu ciy wax sax euh, Kéba fay donc mu defoon ci tamit liggéey bu rafet donte bëri na ñoo xamante ne tey reprendre nañ ko mhm. mais moom peut-être liggéeyam fës na ci bu bu baax a baax muy ay œuvres yoo xamante ne déjà am na mhm. comme ni ko chaîne télévision wala sax rajo yu bëri defee mhm. par exemple nga jël euh, benn ci discographie yi sunu nga jël ci benn son euh, def ko émission non seulement day tax melomaan xam ne lii diw la mais day tax aussi ñu mën a euh, joxante rendez-vous à chaque fois bu ñu waree waaw émission bi la ñuy waajal wala mhm. émission bi moo jeex mhm. donc loolu de dafa am solo lool bu dee nag dafa gàtt trop dañuy wax générique générique souvent dañ koy def à la fin wala sax au début du d'une émission mhm. waaw yooyu yooyu dafa am solo ci indicatif la également dañ koy mais bu fekkente ne par exemple euh, musique bu gàtt la dañuy faral di wax jingle mm-hmm. donc pour ñëwaat rek ci li nga xamante ne mooy solo euh, Salimto mm-hmm. et di loo xamante ne dafa dugg ci identité culturelle non seulement RTS mais paysage audiovisuel laay wax parce que gis nañ suñu confrère immédiat ñoom ñoo ngi koy jëfandikoo mm-hmm. juste pour diir que du loo xamante ne RTS kese moo ko moom parce que à l'époque patrimoine la patrimoine la donc euh, dafay tax ñi nga xamante ne ils ont vécu ces moments à mm-hmm. chaque fois bu ñu ko déggee rek mm-hmm. dafa am lu bëri loo xamante ne mm-hmm. euh, dafay ñëwaat yaa ngi gis euh, ay chariot du feu par exemple Cheikh Tidiane bu ko déggee dina am yu bëri lu mu ko fàttali ay ñoom Mozart ak yi nga xamante par exemple Waziz euh, Diop da ngay gis parfois gars yi di ko dugal ci yenn émission yi Julien Jouga wala mm. mooy comme Baaba Maal ak Baaba Maal également ak Black Panther baax na ci rappeler jamono jooju du RTS mm-hmm. <laughs> xam nga boo ne peut-être boo ko nee peut-être nga réeral ñi nga xamante ne mais ku ne Salim jamono RTS je crois mm-hmm. rajo Sénégal rajo Sénégal mais ba léegi sax dañ la ne Aliou Diop mu koy wax ci reportage ba léegi dañ koy teg chaque jour. Mm-hmm. c'est pour dire que ñoom dafa bokk mm-hmm. seen patrimoine. Ah, si ça continue waaw. Mm-hmm. parce que am na yeneen génération yoo xam ne comme ni ñu ko waxee peut-être bokkuñu génération am na ñu bëri ñoo xam ne bokkuñu génération mais ñoom ñëpp même souvenir bi lañ gardé. voilà parce que bi ñuy demee. seen rakk ñeneen dañuy ñëw dañu ñëw di ko di ko dégluwaat et ça cela me rappelle aussi beneen beneen souvenir muy Marama ak Birane. voilà boo xam ne dama ko bëggoon ba su ma jëlee exemple ñoom laay wax tout le temps. comme Youssou Ndour ak xale yi rek juróom-ñetti wax. voilà wala diisoo. disons que c'était un rendez-vous boo xamante ne. voilà c'était très attendu dans le monde rural. voilà waaw bu fi taasu fi nga wax. voilà. diisoo ak sàmmkat yi. dafa sàmmkat yi loolu olof naan jotaale Modou Fall dafa jotaale mu ngi noonu. suñ suñ euh, doyen Kader joxaane mi. voilà voilà liggéey ci liggéey bu am solo ñu ngi koy nuyu bu baax a baax doyen Kader joxaane. waa RTS yëpp les anciens tous les anciens. gis nga Ibou ñu jeexal jeexalee ak ah. euh, agenda culturel ak ah. yi nga xam ne ay raay lañ muy doomu Sénégal ñan mhm. la ñi nga xam ne ñoom la ñu euh, jàpp boole leen ci loolu ñu naan euh, Sotigi Award mhm. nekk ñu koy amale ci Burkina Faso ku ne xam ne aussi ne Burkina Faso aussi c'est un pays de culture waaw pays de culture pays de de cinéma donc nga may ma jeexale ko ak gërëm Serigne Abdoulaye Diagne rek Mara mhm. jàpp ci liggéey bi moo ñu yombalal pour yenn gëstu yi mu mu a gën a yomb ci ñun daal. ñu ngi mhm. nuyu baax donc ñëwaat ci li nga xamante mooy Sotigue 1. Mhm. di événement euh, culturel boo xam ne dañ ko wekk ci wàllu production audiovisuelle ñu ne nag atum ren ji dinañ ko amal fukki fan ak ñaar jàpp euh, fukki fan ak ñeent ci weeru novembre. Mhm. atum 2020 bi ñu nekk. ñu ne nag ren ñu fas yéene waxtaanee ci li ñuy duppee culture de la paix. maanaam nees def ngir euh, jàmm ak salaam gën a sax dàkk ci ci biir mi ci noonu nag ñu ne. am na ay doomu Sénégal yu ñu ràññee ci wàllu audiovisuel fii. Euh, yoo xamante ne bokk nañ ci ñu nominé. Euh, bokk nañ ci euh, ñaari actrices yoo xamante ne ñu ngi maîtresse d'un homme marié. Halima Gadji ñu gën ko xam ci Marème xalima Halima Gadji am na également mm-hmm. Ndeye Binta Lay mm-hmm. moom mooy Lalla. Mm-hmm. mooy Lalla c'est la scène. donc. Marème jàll moom ñu ngi ko nominé ci meilleure interprétation féminine. Mm-hmm. Lalla meilleur espoir euh, féminin. Mm-hmm. am na tamit euh, koo xamante ne ci série bii di Golden la bokk di Amélia mbay mm-hmm. di artiste bu ñu ràññee également. Amélie Mbaye je celle qui a joué ce rôle le femme la majestueuse mange. <laughs> ma jigéen. Euh, Euh, nominé nañ ko muy Souleymane Ndiaye. Euh, moom meilleur acteur de acteur meilleur acteur de l'Afrique de l'Ouest. c'est pas son baptême de feu. waaw on se rappelle la pirogue de Moussa Touré. en même temps mu ngi le talon de bronze de Yenenga. d'accord c'est Djamil non Djamil Gaye na ci. c'est lui qui a joué le rôle de Djamil. voilà mais il a joué un un grand rôle. dans la ci Golden waay. ci wàllu mhm. ak man également ku ñuy duppee Alassane Sy ci film ba am na fi. Mhm. production bu Mamadou Dia def. Mhm. loo xamante ne daal day fësal wala di wane euh, vraiment taxawaay bi nga xamante doomu Sénégal ñu koy def. non euh, c' est audiovisuel ci ci biir. waaw te xam naa ne sax bu ñàkk ci ay jamono di nga ñu defal benn euh, zoom si industrie bi nga xamee ni mu ngi commencé développé wu quand même le cinéma mm. sénégalais surtout Marodi ah parce que ñu ci bëri je vois que film yi Marodi moo leen di produire ci Nollywood fi mu toll est-ce que tamit industrie bi am na benn poids économique financier boo xamee ne acteurs yi mm-hmm. dinañ dem ba gis ci seen bopp je pense que loolu tamit gëstu la boo xam ne du ñàkk ñu di nga ci waaw incha allah loolu li nga wax am na solo lool euh, du ñàkk daal ñu gën a yaatal liggéey boobee ndax li nga xamante ne moom gën na leen may doole donte yàlla télévision yuy reprendre seen production mm-hmm. mm-hmm. mais la chaîne YouTube tamit jox na la vraiment yenn mm-hmm. opportunité gën leen encouragé tamit ak annonceurs yi parce que keroog dañoo gis benn vidéo maîtresse d'un homme marié seen équipe bi dem Abidjan nga gisee accueil bi on se dit mais ñun ne euh, prophète ce soir fii ñu leen fi nekk di leen xalab voilà j'ai des amis j'ai des amis euh, oui vraiment. Cameroun. mais ñoom dañ doon suivre maître bien avant ñu am sax ay yenn version yi. Mhm. donc dañ doon seetaan wolof yi. Mhm. sans pourtant ñu comprendre mais bon. Mhm. Sénégal rek moo gëm lu boppam. Ah, waaw am nañ loo xam ne suñ ko travaillé war nañu. li ma li ma li xale bu moom bu bëggee nekk star day bàyyi ba ñu dugal maîtresse mu dem ci surtout. ci ivoirien yi comme dañ koy commenté ne day dem day tabaxal baatu olof su ko defee gars yi dañ koy topp <laughs> star ah, mais moom déjà day nekk day elle se sent vraiment euh, kii quoi star parce que dañ koy ñëw di laaj di ko laaj di ko posé question di ko posé question di ko laaj tellement euh, ñu leen di souhaiter bonne chance bu dee di xëccoo yàlla may leen ndam et beaucoup de courage Golden aussi quand même révélation la doon mhm. jàll sur la télévision Futur Média ak ñoom Jamil Gaye euh, seen saison une bi jàll na maîtresse d'un homme vraiment. ñu ngi ciy def euh, ay liggéey liggéey bu rafet quoi. xam naa ak tuuti appui rek. Mm-hmm. affaire bi dina gën a kii mm-hmm. parce que produit sénégalais bi. Mm-hmm. c'est pas parce qu'on est là mais. dafa ñeex a jaay parce que souvent. dañ la naan peut wolof bi moo leen xaw a kii tuuti mais. ils adorent suivre surtout nos femmes ak sous-titrage yi surtout ak seen bi bokk na ci li nga xamante ne moom moo leen di gën a attiré surtout voilà sañse yi surtout waaw et puis dañ euh, à chaque fois léegi comme si si la jeune génération là aussi vraiment ñu ngi def euh, vraiment ñu ngi góorgóorlu bu baax a baax ko ak les écoles de formation yi fi nekk waaw xëy na dalal la gogo. Doudou Ndiaye ñu ngi lay <laughs> nuyu. maîtresse d'un homme marié yaa ngi sànq ba tey yaa ngi ciy wax maa ngi la a. <laughs> yow bi moo daan c'est très normal. ama sànq maa ngi naan leen Modou Fall euh, kii la moom dafa dafa jotaale mais kii dafa luubu. Wolof Ndiaye xam na li may wax bu baax Mamadou Ndiaye Chérif ñoom ñëpp dañoo dugg Mamadou Ndiaye ñu ngi lay nuyu di la dalal. sama mbokki artistes yi delluwaat seen i mbéj. ah man dama cee bëri xam ne ci dara téléspectateurs yi je que euh, di leen souhaiter ñu passé ajuma mu ajuma mu mubarak comme ni nga waxee jërëjëf uh-huh. ñu ngi la koy souhaiter également Ibou ñu lay jaajëfal bu baax li nga indi amati na solo. waaw waaw gis na jëm nañu. Euh, culture moom xam ne rek pour mu am solo dafay yomb lool. parce que généralement. Euh, même yenn saa yi dañ koy xaw a kiyal mais ñi muy intéressé dafa bëri lool. la culture est au début et de tout maam Senghor doon waxee daal am na solo. président poète bu fonkoon culture loolu moo ko doon wax xam naa gars nag scientifique yi léeg-léeg boo boo waxee phrase boobu ñu am luñ ci sànni. mais bon def ci ak sotti ci ak def ci la ñu koy jaajëfal bu baax a baax Ibou Diouf bu ñu jógee ci wàllu.